Lamine Ba maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum euh, Awa. ngay taskatu xibaar ci wàllum aada ak cosaan ci Music Africa jamono jii nag muy période fin d'année rawatina tey muy fête de Noël lan mooy programme artiste musicien yi en général. période bi euh, nag euh, période boo xam ne pour artistes yi en tout cas période bu fas la maanaam période boo xam ne dañ dañ leen di solliciter lu bari. muy ci Noël bi muy ci. fête de fin d'année maanaam réveillon bi euh, artistes yi euh, mois de décembre en tout cas dañuy jouer lu bari bari am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne euh, depuis un deux ba trois mois depuis trois mois seen décembre euh, seen mois de décembre bukki nañ leen donc période la boo xam ne macha allah euh, artistes yi ñin dañ leen di soxla lu bari dañuy jouer lu bari bari bari macha allah. nan nga gisee yi tamit prestation yenn ci artistes yu ci mel ni Baba Maal ci festival Les Blues du Fleuve. Baba Maal euh, ci festival bi nga xam ne. mooy Blues du Fleuve nekkoon ci quinzième bi Baba Maal a été juste euh, grandiose maanaam Baaba Maal a été à la hauteur euh, boo xoolee édition bi dafa xawoon a spécial ndax euh, ay ay paramètres yu bari benn ci paramètres yooyu mooy ni mairie de la ville de Podor dañu décidé woon jël benn boulevard boulevardu lëmm tuddee ko duppee ko Baaba Maal je pense que loolu dafa nekk lu rëy ci Baaba Maal dafa nekk lu rëy sax ci ci Sénégal moo tax ci prestation Baaba Maal ci Blues du Fleuve ren gis nañ ko ci gis nañ ne am na am na mbégte am na kontante bu rëy loolu dafa représenté lu rëy ci moom en tout cas ci sama perception gis naa ne loolu touché na Baaba Maal te wane na ko ci prestation wane na ko ci en tout cas édition bi ñu weesu. daanaka sax am na ay artistes yu ci mel ni Carlou di nga xamante ne tàmbali nañ seen ay concert euh, premier décembre ba léegi. ren ji euh, Carlou di dafa nekk euh, artiste boo xam ne bokk na ci artistes yu marqué deux 2023 bi marqué ne at bi pour sa musique mais aussi euh, pour coow lu ndaw lu amoon mais mu surmonté ko wane grandeur focus ci liggéeyam d'ailleurs euh, démb présenté na dernier euh, album xam nga Carlou D dafa bokk ci artistes yi gën a ràññeeku ci biir Sénégal yi gën a ràññeeku ci biir Afrique nekk un grand ambassadeur de la de la musique sénégalaise de la musique africaine ci euh, ci ci bitim réew euh, donc euh, il est très très sollicité et comme en général tous les artistes tous les musiciens dañ leen di soxla décembre bi moom mois de décembre bi dafa nekk des mois bu intense mois boo xam ne nit ñi dañu koy laajte lu bëri donc il en a profité pour euh, non seulement présenter album mais wone ay joxe en tout cas may ay spectacle yu rëy rëy ndax bërëb yi ñu mën a defee concert yi doy na fii ci Sénégal te lu ci mel ni maison des cultures urbaines la ñu gis centre Blaise Senghor ak ji hip hop. waaw awa xam nga euh, ni Sénégal Dakar malheureusement structure euh, salle de spectacle yi doyul doyul li ñu soxla ci salle spectacle. demande bi moo ëpp fuuf fuuf li li li nekk tey jii donc c'est un bokk na ci problème yi nga xam ne musique sénégalaise mu ngi koy jànkonteel maanaam kii salle de spectacle yi doyul euh, hôtel yi restaurant yi ñu ngi accueillir ñu ngi ñu ngi permettre nit ñi di jouer mais taxut ak taxul euh, mu mu wàññi wala mu am euh, mu wàññi demande bi. ndax artistes yi dinañ am dara ci concert yooyu la ñuy def ci fin bi. bu ñu waxee dëgg rek gis nga mois de décembre artiste bu ko bu ko raté musicien bu ko raté rate nga lu rëy parce que quand même euh, mois la boo xam ne. ci bokk na ci mois yi leen di gën sollicité ndax mois de euh, weer bi nga xam ne fête yi dañoo bari dañoo tegaloo fin d'année yi Noël bi donc euh, mois mois la boo xam ne ñoom def nañ seen programme bu yàgg donc euh, macha allah liñ ci gañ gagné par rapport ak yeneen weer yi mën nañu wax macha allah dinañ ci am quand loo xam ne tane na loo xam ne. lu mu néew néew néew mën na mën na mën na mat na dara daal mën nañ ko waxee noonu maanaam ci koppar di décembre lu intéressant la pour pour musiciens yi pour artist yi pour chanteurs yi. lan la musique di apporter réellement société bi rawatina ci koom-koomu réew mi. Ah awa musique li mu li mu mën a indi ci société li muy jariñ dafa dafa bari. musique day day créer ay liens musique day. day jur ay émotion musique aussi échappatoire la maanaam boo amoon problème boo boo may xalaat bu bu ub sa bopp musique la économiquement aussi euh, musique day indi ay emploi day jur ay emploi euh, dafa bokk loo xam ne day suuxat tourisme bi lors des festivals dafa dafa nekk dafa musique dafa am pàcc bu am solo ci économie économie bi ñuy wax économie créative ci beneen fànn mooy fànn sociale bi musique euh, dafay permettre ngay exprimer wu défendre say idées musique dafa dafa weesu dafay dafa dafay transcender barrières linguistiques yi et culturelles dafay tax ñu mën a partager ay expérience dafay tax ñu mën a bokk ay expérience ci ci gàttal musique day day day suuxat day enrichir suñu suñu suñuy dundin fànn yu ne. est-ce que nit mën na dund sans musique. Euh, est-ce mën na dund sans bien sûr euh, loolu mën na nekk techniquement quoi mën nañu mën nañu mën nañu dund sans musique du du musique du du comme euh, lekk bi ngay lekk wala wala naan bi ngay naan wala. nelaw bi ngay nelaw mais ci ci beneen fànn muy ci culturellement wala émotionnellement musique dafa am njëriñ ci ci dundinu doomu Adama euh, mën na nekk source de joie mën na la defal maanaam source de réconfort la voire d'inspiration maanaam mën na la jox yeneen xalaat yu gën a rëy yu am solo. bu weesoo li nga xam te ne mooy divertissement bi ak li muy jàngale musique yan rôle la am. Euh, musique euh, rôle yi muy joué dafa bari. bu weesoo divertissement bi mu doon walla enseignement bi mu bi mu mën a joxe dafa dafay euh, dafa weesu sax day day day transcender frontière culturelle. frontière linguistique yi wax naa ko sànq day day boole nit ñi musique dafa mën a boole nit ñi te musique aussi moyen la pour nga nga exprimer nga partager say émotion euh, musique day faj musique day tax ñiy déglu mën a dund comprendre sax seeni sentiment wax naa ko musique day faj euh, dañ koy utiliser sax pour pour faj ay ay trouble ay ay ay trouble pour pour faj ñoo xam ne dañoo jànkoonte jànkoonteel ay problème euh, de de li ñuy wax des santé euh, problème de santé mentale musique day dëfal day day stimuler day tax nit ki mën a day favoriser guérison musique aussi mën nañ ko utiliser comme moyen de communication sociale maanaam day renforcer eh, appartenance à un groupe maanaam booy déglu musique poular wala mooy booy déglu musique séeréer def da lu mu lay yokk da lay jox aussi sentiment ne am na foo te da koy suuxat loolu tamit musique moo moo koy def musique aussi gis nañ ko surtout ci rap sénégalais dafa dafa dafa nekk euh, moyen de protestation et d'activisme day tax nit ñi mën a wax seen xalaat politiquement socialement am na ay woy ay ay ay titre yu yu am solo yoo xam ne nekk nañ sax ay im na ay pour des mouvements de protestation et d'activisme musique aussi euh, moyen la pour pour tasaare ay ay ay histoire ay tradition ay ay souvenir euh, ay marqueur culturel et historique yu yu am solo musique aussi day day day suuxat day stimuler cerveau day day améliorer sa concentration ak sa mémoire da koy yokku am na ay façon musique yoo xam ne sax dañ koy utiliser pour pour améliorer sa sa performance su cerveau musique aussi euh, comme ñu ngi ci période de fête musique dañ koy utiliser dans des moments de fête dans des événements joyeux des événements festifs Euh, boo xoolee feet yi li koy li koy gën a jaxal <laughs> mën nañ ko waxee noonu musique ci la bokk dafay dafay contribuer dafay yokku benn atmosphère mm, boo xam ne atmosphère de célébration la et atmosphère de de joie la maanaam atmosphère bu positif la macha allah donc mën nañ wax ne musique langage la bu bu boo xam ne weesu na sax divertissement rek ak enseignement li muy li muy impact bi mu am ci suñu suñu dund dafa bari trop trop trop macha allah. noo gisee statut artiste bi nga xam te ne ba tey mënuñu koo appliquer. Euh, a gis nga euh, statut de l'artiste. processus la bu bu laaj lu bari bu complexe la. te dafa dépendre ci lu bari. amagul ba léegi volonté politique la man waxtaan na ak ay politique waxtaan na ak ay ñoo xam ne ñoom ŋànk musique bi ci Sénégal te boo leen dégloo ñoom ñëpp di nga xam ne manque de volonté politique la mais bu loolu weesoo euh, euh, yeneen facteurs yi mooy ne loolu dafa war a nekk priorité gouvernementale te nekku ko malheureusement parce que gouvernement bi dafa war a faire face à de nombreuses priorités li mu li mu war a régler dafa bari tellement éducation baa ngi fi santé baa ngi fi développement économique baa ngi fi donc établissement ou statut de l'artiste ñoom mën nañ ko bañ a gis ni priorité la bonte priorité la mais war a régler bari tellement que mën nañ gis ne du du du priorité. artistes yi lan la ñu soxla rek ngir mën a dund seen art ci ni mu waree. li artiste soxla pour pour pour vraiment euh, vivre de son art maanaam dundee li muy def moom mën ko dundee bari na artiste dafa soxla reconnaissance ak visibilité artiste boo gis dafa soxla ñu apprécier ko ndax liggéeyam. Euh, loolu mën nañ ko mën nañ ko gis mën nañ ko xalaat ci mu am visibilité ci média yi muy muy ñu koy soxla di ko jàllale di ko di ko di ko invité ci ay événement yu rëy aussi mu am mm, benn lu ñuy waxee fan base artiste dafa dafa soxla loolu artiste dafa soxla reconnaissance ak visibilité artiste aussi dafa soxla soutien financier parce que lu am solo la parce que artiste pour mu mën a def aaram ay compétence am mën a développer ay talent am. Lamine Ba jërëjëf may fàttali rek ne taskatu xibaar nga ci wàllum aada ak cosaan ca Music in Africa maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf euh, Awa maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax.